coow li doxoon ci diggante 2STV yi ak TFM ñu doon wax naan dañoo sàcc seen signal moom El Hadji Ndiaye mile mu daal di woon porté woon plainte groupe bii di groupe Futurs Médias yóbbu woon leen ci yoon bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi fare ci Dakar Actu ñoom ñu jote génne biléb xibaar ñu ngi firndeel ni Ndiaga di rakk ci Youssou nduur moom mi nga xam ne mooy directeur technique bu groupe Futurs Médias dafa bokkoon ci ñu ñu doon tudd ci yëfile daal di nañ koy teg loxo ni tey ci suba gi jamono jile nag mu ngi ci fi nga xam ne moo di ci tribunal bu Ndakaaru Ndiaye Ndiaga Ndour nag nekk na ki nga xam ne moom lañ ci njëkkoon a déglu ci mercredi ñaari fan ci weeru soin gi ñu génn moom nag mu nekk euh, frère ci Bouba Ndour nag ñiy fàttali ne mooy directeur programme bi nga xam ne moo nekk ci télévision boobule lépp luy xeetu programme moom moo koy yore ñu leen di fàttali ne coo loolee 21 juin bi nga xam ne la ñu génn ci euh, génn gi nga xam ne moom la ñu defoon ci li nga xam ne moo jëm ci fête de la musique bi ak anniversaire bi nga xam ne moo jëmoon ci lancement wu seen euh, télé yi nga xam xam ne moom la El Hadj doon def ci la daal di li nga xam ne moom mooy nañu doon def ba sàcc ay signalam moom El Hadj Ndiaye ci la daal di wane lépp fësal yi fi démontré ko pièce par pièce joxe ay datam ba noppi itam joxe ay preuve am porté leen plainte mbir moomee nag mujj na jamono jile mu ngi ci loxo yoon tax na ñu teg loxo ki nga xam ne moom moo di Ndiaga moom mi directeur technique bi nga xam ne moo fare ci boobu lépp groupe jamono ji may àddoo ngeen di teewlu bu sukkandiku ci Dakar Actu moom Ndiaga